dama la wax ne la néew dooleeg samay way jur moo gàttal sama njàng sama way juru jigéen yàlla na ko yàlla doole ay leer bi muy génn àdduna ci ci ci ci coono rek la génne àdduna booba maa ko duma ko fàtte rond-point bii fu ma fi tollee rek sama àdduna tukki booba sama way jur wéré dina awma fenn fu ma jëm am na sax ñu ma bokkal ñoo xam ne woo naa leen bis na leen ah man ne sama way jur wi daa wéradi bëgg naa ko ma ci dimbale ñu kenn ñu ne ma ah, yow kat comme comme amoon nooy faje sa way jur nga xam ne sama way juru jigéen bi muy génn adduna ci ñàkk moyen nu mën ko taxawu ci la génne àdduna <coughs> loolu am na booba moyen jafe na màggal da daan ñëw dañuy dem sax Daaru Xudoos pour wut foofu yàpp pour andi si kër gi bu dee tabaski sax man naa am problème sama taaw bi muy juddu sëñ Moustapha Guèye mii bi ñuy fekkee ci néeg bi na ma xale bi juddu na boo leen amee ñaar fukk ak juróom ñu jënd ci eh, xaaju kii diw amu amu amu amuñu ko nga xam ne dem nañ ba deux heures ma door a am douze mille cinq cent ñu jaar ci ginnaaw xotti mbubb bu ñëw jox jox soxna si mu sol ko sama taaw. waaw sama wajur bi mu jigéen bi mu génnee àdduna biñ ko saraxalee ba noppi dañoo fayee lépp ay bor mu des quarante cinq mille quarante cinq yooyu maanaam ni donga di majjaale noonu laa ko doon yalwaane amul mënuma am bànneexu événement ndax bu mu sañoon yàlla mooy mooy mooy mooy dogal ci ab jaam daal sama way jur u day jooy ba dafa silmaxa dafa may wax ne li nga am te sa waajur fekkewu ko moo metti bu ko fekkee woon ndax mësul dund noflaay mësul dëkk ci néeg buñ tabax mësul dëkk ci courant mën naa ne mësul naan sax glace ndax ndax gisu ko amul fu koy fu mu koy fu koy fu mu koy jële waaw ak coono ak daw rek nekk jëfkat boo xam ne nag son son way juru góor gërëm na ko wax ma ko di ma ko wax guddi di ma ko wax bëccëg wax ma gërëm gum ko gërëm keroog bi mu génnee àdduna maa ko defaat ci oto bi ba ñëw fekk ko fi mu nekk mën na ko bàyyi mu wuyu mën na ko sama yaay di génn àddina bis boobee laa fàttali gis ko mu di ko jooy ba bisu tey bii dafa silmax saa yi ma ko nuyoo rek lu ma ne ko ah na nga doolee ñaan mu ne góor góorgóorlu rek nga sa yaay dafa baax ba ci sama famille yëpp ku ma wax loolu am moo tax man mënumaa bew mënumaa réew sama waa kër xam nañ ko du ma du ma denc sax ceeb sax amul jënd denc bu nit jaaroon fii ci mbedd mi tey di yalwaan wala nit am problème dañ may nëbbu waaw jamono bu nekk léegi nii ci bëccëg laa jógee hôpital sax nga xam ne moo wéetee nii rek bés bi di ñëw nii nit ñi ñëw rek damay sama tension day wàcc toujours ndax maa ngi xalam way jur yi li mu yéene woon ba bëggoon ko te mënoon a fekkee tey sëñ Tuubaa dimbale ma man ma mën a jël en charge may jël en charge ay junni ay nit di leen entré boo demoon ci hôpital yi bu la neexee nga laaj leen dañuy jaaxle ma jël en charge ci bu ma goree waruma seetaan ku sonn ndax man ci ñàkk ak coono la ma sëñ Tuubaa jëlee sëñ Cheikh boo gisee du du bànneexoo maanaam man mënuma maslaa ci sëñ Tuubaa mënuma ci ruus kenn mu kenn mënuma cee ñot di wax ma ci lenn lenn lenn ba ma déggoo damay wax naa ne ne Jibril sax bu doon wax pour lu juuyoo ma dégg sëñ Tuubaa du ko déglu waxuma la ak nit man sëñ Tuubaa dafa jëflanteeg man jëflante boo xam ne nii dara dara dara du ci kii waaw jëlee ma foo xam ne yóbbu ma foo xam ne tey ah euh, mënuma ko woon te loolu moo tax ma ne la mënumaa bew mënumaa fuuy mënumaa reew mënumaa yëg sama bopp waaw la la sëñ Tuubaa doon wax boroomam wal tubashir bi yel ma dawaama anjim bi abahum ku laxini man dafa dal ci man yàlla yow nag ma na bégal ci man jirim yi fàtteloo ma ci ñoom seeni i ndey ak seen baay loolu dafa maa dal ci sëñ Touba daf maa fàtteloo ñàkk wayjur fàtteloo ma ñàkk fàtteloo ma tumuranke fàtteloo ma lu nekk nga xam ne euh, lu bari neexu la mën a expliquer waaw. sëñ amul moroom ji ñuy wax gëmee nañ ko ci yu bari waaye damaa bëgg nu gëmee ko ci gëmeewaat ko ci man xam ne fii la ma sëñ Touba fekk man fu suufe fii. furonu fii furuqe fii la ma sëñ Tuubaa fekk génnee ma fa waaw fii la ma sëñ Tuubaa jële waaw lëndëm gi kon joxañ bi ma doon joxañ naan suñu waa jàngee la laa bëgg xam ne man jën malaas boobee ma faru jë mooy mooy sëñ Tuubaa aw ma nag lu ma mën a def mën naa woote sant ko muy lu ma gëm nag woote ko ngir bëgg lu ma ci am bu doon alal bëgg du ma ko ci def ndax li ma ciy def mënu ko am. bu doon lu ma ciy am li ma ciy def mënuma ko ci am waaye bëgg naa daal ab bis boo xam ne lu gàtt gàtt dara yëngu sax ñu ne lu ko yëngal ñu ne Gana Messere lay sant Sëñ Tuubaa waaw bëgg naa ko daal waaw loolu moom bëgg naa ko moom waaw yëg ne daal maa ngi sant Sëñ Tuubaa santu xol nag ak cër ak làmmiñ ak lu ma am te man ko def ko ci moo tax may tàllal ñëpp loxo. ñu jàppale ma ci ngir sëñ Touba ci jàng alxuraan jàng xasida taxawule ma bisub sëriñ Touba bii nga xam ne sant sëñ rek laa ci jublu ndax boo santee sëñ tey sa way jur wa nekk barzaq bu bis ba yëngoo ñu ne lekk koy def ñu ne gànname si rek way juram mënut a ñàkk euh, yëg yëg loolu hmm? mënut yëg loolu kon moom ma nga ca biir say maam sax da leen di ràmmuwaale yoo xam ne démb lañu woon nekk ci leneen da nga leen di ràmmuwaale ci biir bisub sëñ Touba boobu moo tax ma ma ma woote ko ngir sant sëñ Tuubaa rek nag sant gu ma gëm goo xam ne moom jëmmi sëñ Tuubaa xam na ne man maa ngi koy sant waaw sëñ Tuubaa xam na ne moom xamal na boppam ne man Gana Messere maa ngi sant sëñ Tuubaa wallaahi asim maa ngi koy sant moo tax ma wax ne benn jant bu fenk ma nar boole sëñ Tuubaa dara man balaa sonn naa dem faatu wallaahi asim barke Xaadimu Rasuul lu ma mën nag danaa ko def ci jomm ak ruus ak waa kër sëñ Tuubaa waa kër sëñ boo gisee bu may défendre du ma nangu tudd sëñ bi du ma nangu tudd waa kër sëñ bi mooy ki ma doon laa xam man maanaam man tey am na ñooñ jaral naa leen dee am na ñoo xam tey boo ne woon gànn jaral leen ñàkk seen bakkan waaye gànn mooy kat ku sëñ bi jëlee ci pax ragg la ba nga set faxas la teg la nee rek nga jaral ay nit dee kon ña sëñ bi tànn bokkoo leen. yow boo amee jom yow min jëlee ci pax mi yow waroo nangu ko laal ñii boo amee jom loolu rek la man xooluma nu kenn mel man ni ma meloon man ci laa xool man man man bokkuma ci sama yoon nekku ci laaluma ci sëñ bi jëlee ma ci indi mi kon man bu ma amee jom te am ngor te di ko xool moom ndax man bu ma bu ma ŋàññee kennam moom bu ne ma gànna yow faa la jëlee baa la fay jëlee tàgguma kenn kon man lan laay wax moo tax du bu ma doon bu ma doon défendre ku ma mën di défendre ci adduna it loola laa ci jiite moo tax yàlla di ca may ndam ki de man maa dem ci bu ñuy ñaanee ñuy dugg di ñaan ma ne man damaa rusatee ñaan sëñ Touba ko rus ndax li ma xamut tax te te yaakaaruma woon ne danaa ko am sëñ Touba dama defal kon bu ma taxawee di ko ñaan du ma su gor lu may ñaan sëñ Touba laa xamatul te mosuma koo gént mosuma feeñu ah te amul lu may bëgg te dimbaliwu ma ci kon bu ma taxawaatee di ko ki jox te doo ko laaj. di la jox loo xamul ba di ko ko laaj boo taxawee di ko wax dara rek gore looloo tax man du ma ko wax dara du ma ko wax dara damaa ñëw rek ñi ma ànd ma leen ñaan leen man awma lu ma koy wax ndax xaw ma lu ma bëgg lu ma amul yàlla xam na ko loo xam ne bu ma tëddee guddi dama naan nangam lii bu ma ko amoon man xaw ma